mbokki internet yi seetaan 221 info ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mbokki day dañuy def benn taxaw seetlu ci la xew fële TFM Aïssatou Diop Fall dafa yëkkati ay kàddu euh, ginnaaw bi nga xam ni Ahmed Ahmed Khalifa Niass yëkkati na ay kàddu waaye Bouba Ndour nag kàddu yooyu nga xam ni Ahmed Khalifa Niass yëkkati na ko cam jaare ko ci émission bi nga xam ni Aïssatou Diop Fall moo doon animé muy face to face kàddu yooyu dafa jur dafa naqari kii di Bouba Ndour daal ba waral muy tontu kii di Ahmed Khalifa Niass waaye mbokk yi ginnaaw kàddu yi li nga xamante ni Aïssatou Diop Fall wax na ko moom nee na daal ku ma ko rembax ma timbax la ko ku xool seen plateau yi xam ne loxo Ndiaga Ndour gëj na ci télé bi euh, Ndiaga mooy frère bu mooy frère bu Ndour frère rek ci yus Ndour tamit mu ko xool seen plateau yi xam ni loxo Ndiaga na fi plateau yi xobi daas sees bi ma toog mi ngi bëgg a daanu ah, ñaareel bi ba bare bu sondage amee TFM nekk ca kanam loolu nag nan xam barke waykat bi la mu yus Ndour waaw loolu mooy kàddu yi nga xam ne Aïssatou Diop Fall yëkkati na ko pare daal muy xam ne daal ñoom dañoo war a beesalaat programme yi waaw dafa war a changé euh, ruq ruq bi nekk nii maanaam foofu TFM nekk dañ ko war a changé ba tax na daal Aïssatou Diop Fall li nga xam ne kàddu yi mu yëkkati moom li nga xam ne daal ci décembre bi mi ngi doon xaar ay changement yoo xam ne daal télé bi dina ko defaat yeesalaat studio yi émission bu nekk am studio boppam euh, studio bëri euh, kii yu bëri. émission yi bëri bañ a nekk enregistrement mu nekk loo xamante ni euh, maanaam ñu defaraat ñu defaat ay yaatal daal ci foofu noonu ca kër ga TFM googu kàddu yooyu nag moom la Aïssatou Diop Fall yëkkati ba tax na sax moom mi ngi xam le ne daal euh, ñu ma liggéey moo tax may ñëw deux fois par semaine waaye nag sama deux fois par semaine yi ma fi ñëw mooy ñaari yoon yi may ñëw ci semaine bi euh, wecc na trente six maanaam fanweer ak juróom benn yoo xam ni daal ko fi ñew par jour sama sama ñaari fan yi wecc na 36 jours am yooyu mo koy kaddu yi mom la Aïssata Diop Fall yëkkati ki nga xamanteni moy Anam bi nga xamni mom la bu Ndour di tontu mom daf ni dal télévision bi baxon na mais e, kii di Youssou Ndour daf ko jël tek ko ci ay loxo yo xamni dal <laughs> ño xamni war na dem retraite jox ki di Birane mu doxal euh kaddu ya japp nañ ni ak yeneen yo xamni wax na ko dal Eh, eh, nee na TFM daal léegi manam dafa ñoxu ñoxé comme ni nga wax ay ñoxu ñoxu seen seen décoration yu magat yi eh, kër gi laaj na défarat bu Youssou Ndour nag dama ko daan dañ daan tok ma di ko wax waaye léegi toogatun lool motax tax mënuma ko wax boog dañu bëgg a ñëw ci li nga xamanteni Ahmed wax nako ak li ay Aïssatou job Fall wax bu Ndour nak mom lim wax ku nekk dégg nako parce que ci jakar loola ko wax en direct mu taxaw tontu ki di Ahmed Khalifa Niass waaye ñun dañ cee am benn gis-gis kàddu yi nga xamante ni Aïssatou Diop Fall yëkkati na ko Aïssatou Diop Fall en tant que kuy liggéey ca kër ga kon moom am na droit wax TFM fi nekk xat na seen plateau yi màggat na loolu Aïssatou Diop Fall am na si plein droit wax Bouba Ndour nag dinañ la wax li nga xamante ni waxoon nañ ko Bougane ci vidéo bi ñu defoon te doon ci wax diggante Bougane Gueye Dany ak Mansour Diop mbokk yi njiit waroo nekk njiit rek tax ngeen yow daal yaay buur kenn warul laa critiquer kenn warul benn kenn warul wax benn wax jëme ko ci te ñi nga jiite nii am na ne droit di wax parce que ñoom ay liggéeykat lañ foofu ca kër ga lépp loo xam ne ni gis nañ ko fa kenn war koo kaas ñoom na nañ droit kaas ko ba neexee takk morso yi xong euh, def ko dox ñaxtu mais Aïssatou Diop Fall li mu wax nii man jàpp naa ni moom moom li gars yi nag dañ koy dañ koy jiñal lu bëri ndax daa sikk day attaqué Ousmane Sonko affaire yooyu noonu genre nga xamante ni wax na ko Bouba Ndour man damaa jàpp ni dëgg gu mat sëkk la comme li Mansour Diop waxoon bugaan rek nan nan ñu leeralal waa direction bi nan ñu leeral wax ni lu xew waaye Bouba question la rek maanaam maanaam da ngay da jël turu Aïssatou Diop Fall mais da nga naan liggéeykat yi ñooy ñaxtu lii liggéeykat yi ñoo koy sàkku mooy TFM laaj na ñu ñu bees laat seen studio yi toxal kër gi sax loolu nekkul loo xamante ni Aïssatou Diop Fall moo koy mais amaana ñoom buñ ko déggee ñoom moom fi nekk mu ku ne xam na ne xam na am na ñu naan am na ñu naan sax Aïssatou Diop Fall li mu wax nii li El Hadj Ndiaye def mooy toxal 2S fii ci Esquare xam nga 2S léegi mi ngi fii Esquare macha allah ci Esquare macha allah léegi artistes yi sax léegi dañ fay tëgg li nga xamante ni mooy concert léegi studio yi macha allah émission bu nekk ak studio bi peut être xëy na ay studio Fall loolu la bëgg wax mais loolu direction bi ñoom ñooy xool bu fekkee am nan espace boo xam ne mën nan faa déménager yóbbu fa TFM cam arrangé leen loolu ñu def ko loolu moom ay studio Fall du xool ban gis ni war na toxal kër gi yóbbu ko feneen bu fekk TFM moom fi nekk xam na moom man mii di wax ak yéen def naa fa mais seen employé ñi nga xam ne ñoom dañuy liggéey ca kër ga sax ñoom bu ñëwee fu ñu gaare seen oto yi dinañ ko gaare fu sori a ñëw dugg si ci biir kër gi kon nga xam ne ñoom amuñu espace kon nag ñoom bu ñu toxaloon kër gi moom loolu dina gën kii mais booba da ngay xam ni nit boo leen jiitee ñoom am na droit di wax seen bëgg-bëgg Ahmed Khalifa Niass euh, booba Ahmed nga xam ne moom ngay attaqué toog na foofu sa kër goog noonu attaqué tayib soosé pourtant waxoo ci de da noppi mel ni yëgoo ko Ahmed Khalifa Niass toog na ci TFM attaqué Taïb Socé wax ko lu ñaaw waxoo ci dara mais nag lii daf la laal kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko nii wax ko daf la laal yow xëy na peut-être loolu moo tax nga réagir mais bi mu defee loolu Taïb Socé nag mënoon nga cee réagir mais amet Khalifa Niass li mu wax nii loolu dara nekku ci yeesa yeesalaat leen seen fii loolu yéen maanaam maanaam man damaa jàpp ni yéen da leen a pour ngeen def ko comme Walfadjri leen gën a beeslee wala affaire yooyu noonu Ameth comparé wul loolu kon yow lii bu la naqaree yow nag fi nga xaw a wutee ak sa frère Youssou Ndour parce que Youssou Ndour wax ji li muy bari bari bari bari lu nekk dégg na ko Youssou Ndour lu ne dégg na ko lu nekk dégg na ko ay gëmul dara gars yi dañ koy tuumaal sax ay lu ne wax wax façon wax bu nekk wax nañ ko ko Macky la àndal ak télé bi du fay lempo moo tax journaliste mi da leen di corrompre xam na fii ne ñun Youssou Ndour dañuy kaas sax ñun ñàkk a gis gi ñu koy ñàkk a gis ci télé bi maanaam lu nekk li ma bëgg a wax foofu mooy maanaam Youssou Ndour nit ñi dañ koy attaqué heure bu nekk mais moom du tontu moom loolu du jëfam kon nag buuba yow liñ lay wax mooy maanaam yow tontu yi ngay tontu nii amul njariñ Ahmed mi ngay tontu nii Ahmed lim la wax aayul Ahmed lim la wax bu aayoon ñu ne Ahmed mi Ahmed lim la wax dara nekku ci Aïssatou Diop Fall la wax dara nekku ci kuy liggéey boo fa amee lu la am nga droit ko xëy na ñeneen ñi nga xam ne waxuñu ko mais Aïssatou Diop li mu wax nii day dëgg dëgg de dëgg moom dëgg moom dëgg moom du neex mais dëgg la waaw leen waxoon rek bugaan bugaan bugaan bugaan dafa rëy boo ko waxee dëgg mu gis boppam yaay bu ma loolu dal na la ah kon nag ay Diop Fall li mu wax nii dara nekku si.